Eh, dañu ne dama bëgg ay aaya mais léeg-léeg daf koo laaj in jaakum fasiqun bi nabain fa yenu bu bu bu saay-saay ñëwee bett la ak xibaar bala nga koo jël di ci juger nit leerlu ko ba pare ba mu wér la leerlu ko ba mu wér la parce que diw nee na ma nee na lii nee na laa nee lii waaw da nga naan ko d'abord indil ma fi mu ko waxee parce que lu may wax ki ma yar ci politique daf ma daan wax je suis un homme nuancé je suis très nuancé bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene décret di ma fal parce que boobu parce que yéene yoo ko damay bàyyi xel dogalu yàlla man sama yéene laa moom sama yéene kay sama yéene sama yéene laa moom ak sama góorgóorlu ak sama samay pexe wante li ci des nag moom dafa dafa am borom. donc vraiment suñu suñu mbokk yi ku ñëwati rek ne la nee na nee ko fu mu ko waxee rek génneel ba nga déglu bu baax li ma wax puisque dégg c'est très important bu dégg amee déficience xam-xam manqué moo tax yàlla mi xarañ di boole ay turam en général day wax samiun alimun c'est-à-dire l'audient, l'omniscient qualité dégg dégg mooy def qualité xam donc da di déglu vraiment en tout cas ñi ñu sopp daal ànd ak ñun muy njabootu président muy sama njaboot nañu jàpp ni ñun daal dellu nañu mel ni mburoog soow Foi tudo telefone.